xëy na lépp du fi xaj tey ndax yaatu gu mu yaatu waaye suñ ko tàmbali fuñ ci am rek bokk yi ñëwaat sunu gannaaw man koo man faa tàmbali wéyal ko waxtaan wi gën a jëm ci fi jamono toll ndax dafa tàmbalee ci na koronaa lu ko waaye wax tooñ ko ndax sunu borom mooy def may dind korona sun boroom danoo sàkk sàkk ko muy wéy ci ndigal fu ñu ko yam loo mu yam fa loolu liñ ci jànge mooy sun boroom dafa bari lool ay soldaar du malaaka yi rek ay soldaar waaye ku bari soldaar la walillahi junuudu samawati wal ard li yàlla am ci soldaar ci kaw suuf am ko ci kaw asamaan bari na bari goog lim bi sun borom rekk moo ko xam wa maa ya'lamu junuuda rabbika illaa hu ne ni yàlla képp moo xam tolluwaay ak bariwaayub ay soldaaram te li ëpp ci li muy yabal ci nit ñi ci ay soldaar ngir fàttali boppam la ci ëpp doon malaka ndax malaka xëjul ci nit lu néew la ko def te loola ñam ñam yebal malaaka ci ñoom xëy na jéggi dayog seenu tooñ ak seen ma yàlla moo moo waral loola te suñ delloo gannaaw tuuti ci taarix gis ci find yu leer te alxuraan itam leeral nu ko biral nu ko banu Israil xeet lañu wu dëgër bopp di xeet wu doy waar wu naqaree teg ci aw yoon ba tax yonent yu bari wàcc nañ ci ñoom te taxul rek ñu nooy taxul ñu dellu gannaaw taxul ñu jub bi yonent yàlla Muusa ñëwee ci Firawn ne ko arsil yi bani Israil ba nga yebal banu Israil ñu ànd man Firawna gàntu lànk sunu Boroom dafa wàcce ay soldaaram soldaar yi njëkk a wàcce lam xeet wam njëkk a wàcce ay soldaaram mooy mooy mooy mooy am am mbënn am mbënn guddi mbënn bëccëg dëkk ko ndox ba daanaka xawtu ñoo xam lu ñu def ñëw ñi ci Musaa ne ko ñaanal sa boroom mu tàggale nu mbënn mii kon daanu la gëm danañ yebal banu Israel ñu ànd ak yow Musaa ñaan boromam sun borom daal di teggi mbënn ba waaye ñu weddi nekkat ca lañ nekkoon ba jëmbi jamono sun borom jox leen nawet bu baax bu naat lool gàncax gi meññ lool rafet lool ba yaakaaru sun borom yebal yeneen soldaar muy ay njéréer ñëw di faagaagal gàncax ga ba nga xam dem nañ ba ba jàpp ne lii kat bu dëkkut seen lépp dana yàqu ñu del seeti ci Moussa yontu yàlla Moussa alayhi salaam ne ko ñaanal sa boroom mu tàggale no njéréer yi kon daanu la gëm daanu yebal banu Israel ñu ànd ak yow Moussa dellu ñaan njéréer ya dem ñu dellu weddeeti dem ba jëm jamono sunu borom yabalaat yeneen soldaar muy ay teeñ ay teeñ nga xam ne fees dell dëkk bi seeni i seeni ak seen i yére seen yaram foo foo li loo yëkkate muy ay teeñ ba mu leen sonalee ba sonal leen ñu dell seeti ci Moussa ne ko ñaanal sa borom mu tàggale nu teeñ yi kon daanu la gëm danañ yabul banu Israel ñu ànd ak yow yonte yàlla musa ñaan teeñ ya dem ñu dellu weddeeti jëmi jamono suñu doon del indiwaat yeneen soldaar muy ay mbott fees del la dëkk bi seeni néeg ba seeni ñam sax dañ ci dugg ni sax day tisli mbaamu sëqat ay ay mbott di tëbi tëbi ci gémmiñam mbott yaa bare ba sonal ba sonal leen ñu dee seeti yonte yàlla Moussa ne ko ñaanal sa borom mu tàggal nag mbott yi kon daanu la gëm daan yebal banu Israel ñu ànd ak yow musaa dellu ñaanati mbott ya dem ñu dellu ci dellu ci seen dëgër bopp nekka ca lañ woon ba yàgg suñu boom yabalaat benn soldat muy deret suñu tànkee ndox léegi bëgg naan ndox mi daal doon deret suñ rootee ca teen mu doon deret mënuñoo naan dara lu ñu yëkkatee muy deret ñu des si ci musaa ne ko ñaanal sa boroom mu tàggal ne deret ji kon daanu la gëm dañ yebal ma ne sa ñaan ak yow Moussa ñaan deret ja tàggoog ñoom waaye taxu ñu dellu gannaaw loolu su moo di wax ne fa arsalna alayhim tuufaana wal jaraada wal xummala wad dafaadi'a wad dama ayaati mufassalaat waaye ànd ak loolu lépp na fastakbaru wa kaanu xawmu mujrimiin taxul ñu dellu de fa yàlla mujj ak ñoom mooy fa asaw rasul rabbihim fa axadahum axdatan rabiya mooy alal leen rek ci alkande lañ mujj mooy mujj labal firawna ak ñama àndal ci baxru xalsum kon nga gise kon yabal na ay limi lim ci ay soldaar yu bokkut am tuufaan muy am wa am am mbënn eh, ay njéréer ay teeñ ay mbott ba ci deret lu nekk kon lépp ci soldaar yi sun borom la bokk ni biir bi biir bi ñu daa wooyee abrahatum nu saba alxabashi daanañ ko waxit abrahatul ashram mu nekkoon buur bu beew dëkkoon ci Éthiopie Habasha la dëkkoon waaye <coughs> waaye nag euh, moom ab latin la mu nekkoon général benn généralu euh, guerre bu mag a mag te mamlakato ak suum waaye nag mi ngi nekk buur ci ximayyar nga xam ne demoon na ba yilif bilaadul yaman wal xijaas ci diggante atum juróomi téeméeri fanweer ak benn mbaa juróomi téeméer ñeent fukk juróom-ñaar ba ci atum juróomi téeméer ak juróom fukk ak benn fukk juróom bu ne ba ak mbew teem jéggi dayo tax mu tabax benn kanisa bu mag ndax moom euh, masiix yi la woon mu tabax benn kanisa bu mag ca Sanaa wax na day toj kaaba Makka ga digle ñuy xaj kaabaam googu moom muy kanisa boobu mu tabax ànd ak quartier gu mag a mag a mag war ci ay ñay jëm mak ngir toj kaaba ga yàlla yabal yeneen soldaaram muy soldaar yi picc yu ŋànk ay doj sànni koy seen kaw ñoom ñëpp ñu ko ñëpp faatu wasna alim tayra nababil tarmihim bi hijarati min sijil fa ja'alahum ka asfim maakul kon loola ba tey ci soldaar yi borom la bokk giiru ko aat muy giir gi yàlla yabaloon yonte yàlla huut alayhi salaam ngelaw leen soldaaru ngelaw la leen suñu borom alage wa fi haadi isarsalna alayhim riix al ma tadur min shay'in atat alayhi illa ja'alat kar ramim illa ja'alat hu kar ngelaw rek la suñu borom yabal muy soldaaram ca la leen alage ñoom ñëpp ñu faatu fa yàlla yabali malaaka nag mooy jéggi dayoog aw nit xawmu luut yonent yàlla luut ci jamono ci la li ñu tuddee ak ngóor jigéen xew loola nag di mooy yàlla gi bokk ci mooy yàlla yi gën a rëy yi gën a màgg ba tax na sun borom moom ba mu leen di alag malaaka malaaka la yebal waaye malaaka xëjul ci nit yooxug malaaka rek leen alage yooxug jibril ñetti mbugal la leen sun borom al mbugal jibril da leen yooxu ñoom ñëpp seeni xel seeni xol dagg yemu ca ñu ne cas dëkk ba muy dëkkub sëdduum la ñu yëkkati ba ca kaw ñu wëlbati la féetoon ko féeti suuf la féetoon suuf féeti kaw ñaari mbugal mooy mu tawaat ci seen kaw doj doj yu dëgër fa axadathum sayxatu mushriqin mooy juuxu jibril moo dal ci waxtu wi jant bi fenk muy suba teel fajalna aliyaha saafilaha muy ñaar wa amtana alayhim hijaratan min sijjiil muy ñett mu ñetti mbugal yoo xam ne wàcce na ci yonent te ko def nga gis ne yonent ya nga xam ne si ne dañuy wedd yem ca wala seenu mbewte aggul fu kawe fa sun borom dafa yebal leen rek ci ay ci ay soldaaram waaye yebul malaaka waaye nag ñay jéggi dayo malaaka la sun borom yebal muy xaw ma lóot sun borom ne kon nag ngir ngeen jàng mën a dolli seen gëm da ngeen doxantu ci kaw suuf xool fi yàlla mu ak ñi leen fi jiitu woon alum yasiru fi lardi fa yanzura kayfa kaana aqibatu lazina kaanu min qablihim kaanu ashaddu minhum quwwatan wa athaaran fi lardi fa axadahum la bi dunubihim wa kaana lahum min llaahi min waaq suñ boom nee na xanaa duñu dox ci kaw suuf si seetantal xool jàng mujj ñe fi jiitoon ndax ñe fi jiitoon day ñoo leen ëppoon fuuf kàttan ëpp le leen itam xeet ay jeexit yuñ bàyyi ci kaw suuf waaye ànd ak loolu lépp nag la seen kàttan di bari bari bari lañuy bari bari ay jeex ba mbirum yàlla ak see loola amulu leen njariñ seen kàttan ga amulutu leen njariñ seen jeexit di amulutu leen njariñ te ba yàlla dikkee mbiram mbiram moomee nag amul benn jenn aji fekk yoon ci mën a fekk wa makaan lu min laah min waaq amul dara lu mën a dox seen diggante la sun boom wàcc ngir ngir ngir ngir ngir delloo si leen kon xeet yu njëkk yépp suñu moom leen doon alag waaye lam leen alage mooy lenn ci ay soldaaram waaye xeet wii na di xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam warmaal gi suñu boom warmaal bi sallallahu alayhi tax na du alag mukk aw xeetam waaye day di nattoo ci lenn ci ay soldaaram saa bu ñu jéggee dayo ci wàcce aw yoon suñu boom mbiram ngir fàttali leen moo tax sëriñ bi ne korona lu ko waay wax tooñ ko ndax suñ borom mooy def di dindi korona yi suñ borom da ko sàkk sàkk danoo sàkk sàkk ko muy wéy ci ndigal lu ñu ko digal mu def ko fu ñu ko yemloo fu ko yemloo mu yam kon loole firi sëriñ bi teg ci ne xanaa nun kay noo war a seet sunu bopp nun ñi nga xam ne danoo nekk ci diggante sikki sàkk lu jiitu di akuk dengi dengi diggante weddi ak ngëlëmte ak réer loolu liñ ci dégge mooy lu nu dal rek nu na lu nu dal rek nu na tala sun bam waxoon na ko bu yàgg wa ma asaabakum min musibatin fa bi ma kasabat aydikum wa ya'fu an kathir sun bam neen lépp lu leen dal ci lay nuri musiba yéena ko fàggu ci seeni loxo takat yàlla topp leen ci ci lépp de waaye foo an kasir mooy bàyyi na lu bari jële leen lu baree bari waaye su fekkoon da leen topp ci lépp kon du bàyyi dara du bàyyi kenn ci kaw suuf wala yu waaxisullahu naasa bi ma kasaboo maa taraka ala zahriha min daaba wala ko yuwaqiruhumu ila ajalin musamma fa ida jaa ajaluhum fa in laa kaana bi ibaadihi basira neen su fekkoon yàlla da leen jàpp ci li li ngeen def lépp da suñu bon deen caa topp kon du bàyyi ci kaw suuf si kenn ñëpp lay faagaagal waaye kon dafa indi tuuti loo ne ngir fàttali nu la waaye jëlil lu bari bàyyi lu bari waaye yaa foo an kasir kon dafa bàyyi lu bari bari bari waaye suñu toppoon ci lépp kon du doy du tane fi mu toll mooy yàlla gi jege na dayoo ton gi bari na rayante gi yàqante der gi xëccoo gi addunay kese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 أشهد أن لا رسول الله أشهد أن محمدا gis kon jéggi na day day lool ci ak mooy yàlla gis bu ni nga dégg na rey nañ nit barab sàngam ci lu ñàkk solo xëccoo gi addunay kese umaalante gi xeebante gi ñàkk ko lure gi jalgati xàqi jàmbur ñàkk warma ci koñ war a warmaal xawi gi suturas jàmbur wala ko xamal sa morom dara lu ñaaw weer ko ci kanamu àdduna muy ci ci internet bi yooyu yëpp di ay mbir yoo xam ne ñu bari ñu bari amatuñu kilifa ñi am kilifa yi di ñu ëpp toppatuñu seen ndigali kilifa bari na lool ba mënee su ko lim mu yàqu tege waxaral fasaadu fil barri wal baxar maa kasabat aydi naas li yudiqahum ba'da allati amilu la'allahum yarji'un sun bam nee na tege feeñ na lool fees na lool ci jéeri jeeg géej gi te lépp loxo yi nit ñi rek ko fàggu waaye sunu boom léeg-léeg mu indi mbiram lii di xum baax dal si ba tey gis nga fi li muy seet mooy baax dal si kon tëpp ñu lépp waaye baax mooy lenn lenn ci liñ jëf la ñuy mosal tuuti ngir bëgg rek ñu dellu dellu gannaaw laa lum yar joon ngir bëgg rek ñu ñu ñu ñu xoolaat sunu gannaaw delluwaat ci moom yàlla subhanahu wa taala loolu sëriñ bi doon junj ci li nu nekk muy sikki sàkk ak weddi ak deng-deng ak ngëlëmteeg réer loolu nag saa su amee sunu boom fàtte noonu boppam te sëriñ Saalihu daana wax ne yàlla day ko ko fàtte yërmandeem a tax waaye comme fàttali boppam danga ko fàttali ko moo tax moo xoon ne xanaa gisuñu ne sun sun boom wax ne xanaa gisuñu nit ñi xanaa gisuñu ne at mu nekk ma fitnaa leen benn yoon wala ñaari yoon lépp ngir bëgg ñu fàttali ko dellu gannaaw tuub waaye du tax ñu tuub du tax ñu dellu gannaaw tax ñu fàttali ko awalaa yarawna annahum yuftanuuna fi kulli aamin marratan ni marratayni summa laa yatuubuuna wala hum yadakkaruun fitna nag saa su ko sun borom tegee aw jaam ñu dellu ci moom tuub la su te rafetal faruk seeni bàkkaar doon ndax li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne walladi nafsi bi yadihi maa yusibu lmumina min nasabin wala wasabin wala hamin wala xusn illa kafar la anhu biha min xataaya xata shawkati yushakuha nee na gin naa ci kenn sama bakkan mi ngi ci loxo muy suñu borom amul lenn luy dal ab aji gëm moo xam coona la wala jafe-jafe la wala njàqare la wala tiitaange lu may sumboon dana ko ca dana ko farale ca loole ay bàkkaaram ay ñaawteefam ba ci déggu ko jam sax déggu ko jam rek moo tax sëriñ bi teg ca ne nu war a jugaat seet sunu bopp xool sunu tolluwaay war a delloo lépp ci sunu borom ndax mooy def mooy dindi moo xam li muy def moo xam ni nga koy defee moo xam li ko tax di def ni nga koy déggee mooy teyit eh, mu teg ca ne nun kay dana war a góor-góorlu rek ci gën a xam lin ñu digal nu nekk ca te sax ca dàkk gën a xamit lin ñu tere nu di ko daw sunu xelu sunu xelu bakkan loolu mooy sunu wërteef foofu nag lay mbir mi nekk jëfe ndigal ak bàyyi tere ku la raw ci la la rawe xanaa xamoon ne iblis li ko dal lépp mooy ndigal rek moo ko teg mboolem xeet yee yàlla alak yépp mooy ndigal moo tax mu alak leen képp koo gisit mu am ngërëmal yàlla topp ndigal moo ko ko may Cheikh Ibrahima Fall lam am la muy rëy rëy rëy topp ndigal rek ko ko may Cheikh Issa Dieng Sëriñ Mbàkke Buso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 li dale fii fi jolof ba fa gën a sol ci saalum ñi bëgg lu baax nee nañu gàññ lu baax te leen tëj wax ko ñetti yoon ne ndax xam ngeen lu tax ñu ne ko déedéet mu lu baax dane du ma ànd ak lu bon lu bonit ne du ànd ak lu baax yàlla mi leen boole bind ne du ma leen boole nit nag moom jóg fas yéene jaxas lu baax ak lu bon daan ndax xam ngeen jaxase lu baax lu bon nu mu mel ñu ne ko déedéet mu ne mi ngi mel ni yow mu ràbb sa ngunu lu fàtt taraj duy ko sa muusi siiru ba mu fees ngay kër këre ba am sa genn gannaaw dugal ko fi ne da nga koy yar ne ndaxam moo soo soo muus muusi siiru yi ne jaww nga fay fekk daan noonee muusi siiru yi def ganaar gan noonu la jëf yu bon yi def jëf yu baax yi ne comme bu leen jaxasee lu baax ak lu bon sëñ sëñ Muntaxa teg ci na sëriñ bi moom dara indiwu ko fi woon lu dul jaamu boromam ni mu ko war a jaamoo liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa ni mu ko war a liggéeyale fi ko gisee ba ko noppee gisee ci loolu rek la nekk kon waruñoo am benn xalaat wala genn tiitaange wala nuy togg sunu bopp jenn fitna bu nu xëntee wa dara lu du nekk ci lu nu war a nekk muy sax dë muy sax dàkk ci jaamu yàlla sax dàkk ci liggéeyal yonent bi ni ko doon defee diggam boroom ak diggam ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu li ñu ciy déggee mooy nu xam ne indi wuñ nu fi ngir ab noflaay indi wuñ nu fi it ngir fo ñu àndoon na sëriñ bi ci njalbeen ba ci mucc eh, teluñu koon ñoom mosu ñoo noppalu jenn jamono te lañ daa sonn lépp am njariñ la daa doon ca nekkoon di boroomam ca leen nekkuloo ca leen yar itam te loolu rekkit la fi bàyyi kon mooy sunu ndono te lii sunu wëttéef nag mooy sàmm ndono lool yi ba jofal ko ci ngën jaar rafete anam gannaaw sëriñ moom bi nga ko gisee bu ñu ko noppee gis tëlu fi dara lu du boroomam ak yonent bi sallallahu alayhi sëñ bi naan kon lu lu nu doyee di ak lu nu ñàkk-ñàkk solo war na noo xam li li nu am war a xam li nu fi sëñ bi bàyyil mi sunu ndono te loola mooy wéetal yàlla rek sax ca dàkk ci jaamu ko te xamit sëriñ bi fa yéenee nekk ci lim nu nekkaloo te mooy lam nekkoon rek ak lum nu jafe-jafe te doyloo ko sëkk ndax fàggul na nu lépp lum nu war a fàggul te ak ëllëg lu war war a ñaan boromam tey ak ëllëg ñaan na ko bu dee pàggu teef gi juboo na ceeg boroomam bu dee ñaan gi boroomam nangul na ko ko kon loolu li ñu ci li ñu ci war mooy nu gàttandu ko niñ koy gàttandoo nag mooy tuub dellu ci yàlla rafetal ak jaamu suñu digganteeg moom rafetal yi sunu taalibi bi suñu digganteeg sëriñ bi jéem ko delloo njukkal doonte mënuñu ko waaye nu jéem ko ak sunu kem kàttan ci wéye ndigal ak bàyyi tere ndax wax na ne lakum talabtu minhu ghufranan yadum tuuboo ma an li rabbina al baaqil xadiim sàkkul naa leen ak njegal fa yàlla waaye na ngeen ko gàttandoo nag ci rafital ak tuub ak dellu ci moom euh, kon ñu xam ne kon euh, waxtaan fees na dell ak i bind kon ne ma ko waxee mënut a jeex tey kon dañ koy tënk foofu incha allah nag bokk yi ñëwaat ci suñu gannaaw incha allah dañ dañ dañ dañ fi ñu ci am dañ ko dañ ko euh, jàllale ñu xam dafa fees li muy gàtt gàtt dafa fees dell ak i bind fees dell ak i maana ngi ñaan suñu boom mu yàggal mu yàggal ko fi sunu kanam lool te wéral ko baagale mboolem ay naalam ak yéeneem yàlla na sunu boom dimbale boole defal tawfiq xiir nu ci njub ta saxaal nu ci te def nu dëgg-dëgg taalibe Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa nangu nu sunu taalibe wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu an laa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 ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna الحمد لله الحليم الغفور الودود الشكور الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وحرم هذا الشهر حيث جعله فاتحا لشهور الحج المبرور ahmaduhu subhaanahu wa taala wa ashhadu an laa ilaha illa allahu wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi salaatan wa salaaman daa'imayni mutalaazimayni ilaa yawmi l-ba'thi wan-nushuur ammaa ba'du fa yaa ibaadallaah uskuru llaaha fa-r-raabixu man shakarahu washghaluu alsinatakum bi dikrihi fa-s-sa'iidu man zakarahu واقصدوه في طلب الحوائج وهو كريم لا يخيب من قصده واتقوا يوما يؤخذ فيه بالنواصي والأقدام ولا تقولوا ذهب رمضان فتستحلوا فعل الحرام واستقبلوا هذا الشهر بما يرضي الملك الخلاق وتقربوا إليه بالصدقة والإنفاق وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وفي الحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال kaana kaman saama dahra الحمد لله الذي تفرد في ملكه وبقاه وتقدس وتنزه في أزليته فلا عين تراه وقسم الأرزاق بين عباده هذا منعه وهذا أعطاه وهذا أسعده وهذا أشقاه أحمده على ما أعطاه وأشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد أنبياه وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم عرضه ولقاه أما بعد فأوصيكم بتقوى الله فقد فاز من اتقاه وأحذركم عن المعاصي فقد خاب من عصى مولاه ولازموا طاعته وفي طاعته رضاه وآمركم بتعجيل التوبة قبل أن يبلغ الأجل منتهاه واحذروا زمانكم هذا فإنه زمان قل خيره وكثر بلاه واشتغل كل منا بطلب دنياه فواء سفاه وقلة حيلتاه في يوم تظهر فيه الفضائح وتشهد علينا فيه الجوارح والحاكم هو الله yawma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma'idhin lillaah wa fil hadiith irhamu salaasatan ghaniya qawmin iftaqar wa aziiza qawmin dhal وفقيها تلعب به الجهال يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين آمين allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala falaahi qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah Allah الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين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 allahu akbar allah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 xisaabahum allahu akbar allahu akbar الله السلام عليكم السلام